gan gi Ibrahima Sarr mooy secretaire général syndicat bi ëmb liggéeykatu poste euh, sëñ bi Sarr ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. ñu ngi fay madame Ngom di nuyu say mais di nuyu aussi say auditrices ak say auditeurs. di mhm. profiter aussi di nuyu waale poste yëpp di leen ndokkeel ci bés bi nga xam ne àdduna bi yëpp ñu ngi koy feete jagleel ko. poste mu journée mondiale de la poste. Mhm. bés boobu sax moo euh, lay waxtaan wi ñu am ak yow tey euh, tàmbale nag ci post ak jafe-jafe yi muy dund euh, boobaak léegi yàgg na tey lan mooy seen situation fi ñu toll. waaw comme ni ko xamee poste jamono ji ñu toll mu ngi mu ngi ci ay ay ay ay yu bés yu bés yu doy waar. li ko laal moom mooy euh, jafe-jafe yu ñu am ci xaalis muy trésorerie mm-hmm. ba tax euh, li ñu warloo ak askan wi mënatuñu ko mënatuñu ko fàggu waaye muy law aussi ba ci nga xam ne liggéeykat yi nga xam ne moom la ñu doon tey jii li ñu waa li entreprise di warloo ak mun mënatu ko def ci waxtu yam ko doon def maanaam suñuy payoor tey jii on est le dix jusqu'à maintenant jotaguñu suñuy payoor am na ci ñenn ñoo xam ne ci ñun weer wele passé euh, seen payoor yi weer wele passé ba léegi jotaguñu ko euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñun si ñu war leen di fay parfois duñ leen mën a fay ba jar xam nga parfois même ñuy agressé liggéeykat yi verbalement parfois même physiquement euh, ay jamono yoo xam ne ci yenn gërëb yi police dafay intervenir pour dox suñu diggante ak ñoom ci tolluwaay boobu la ñu nekk euh, pour vraiment célébrer la journée mondiale de la poste hmm. mu nekk ay moment yoo xam ne poste dafay dafay dafay dafay dafay fësal ay produits ak ay services yu bees di def ay atelier di ko wasaare pour mën a gën a jege askan wi askan wi xam ci lu ñu nekkee waaye <laughs> contexte bi nga xam ne moom lañ koy célébrer moom mooy ñaaku xaalis bi nga xam ne moom moo ñu tënk ci situation bi nga xam ne moom la ñu nekk. waaw lan moo leen dugal ci guuta gi ngeen ne yéen waa poste. waaw mais guuta gi baaw moom mooy jafe-jafe ji kër gi am. Hmm. te boo xoolee li ko waral moom mooy ay déficit cumulé yoo xam ne yàgg na yàgg na tey jii nii daf ñu yóbbee ci ay tension de trésorerie ku xam poste xam ne. bànqaasam bi gën a am solo euh, la nga xam ne moom mooy jumtukaayam moom mooy xaayis bu demee ba amul xaalis loolu dafay soxe loolu nag dafa am répercussion ci ci ci ci ci activité am yi nga xam ne tey jii nii mën nañu fësal ni <laughs> tey jii nii benn ci doxatul benn ci doxatul euh, mu am ay law xam nga ba ci ba ci liggéeykat mais am ay law aussi ba ci client yi am ay law aussi ba ci partenaires yi donc euh, loolu la. Mhm. alors euh, jafe-jafe bi euh, joxoñ ngeen ci xëy na yorin wu bon alors loola kañ la tàmbali ci bi bi Balde la wala ci yeneen kilifa ya fa newoon. waaw yàgg nañ ko jooy <laughs> yàgg nañ ko jooy yàgg aussi di ci ut wàllu ci ci ci état bi nga xam ne tey jii moom moom moom moom mooy moom pos moom moom mooy euh, actionnaire euh, bu pos mu nekk moomeelu askan wi nga xam ni au-delà de ça warloo ak askan wi ñu ay at ci ginnaaw yàgg nañu alerte maanaam euh, di di di woo di woo kii euh, état bi mu intervenir saytu yorin bi nga xam ne moom dañu yor poste bi hmm. mais mosul am hmm, loolu nag euh, te jii nii dafa dafa dafa dafa wulee ay et que mandarga bi moom mooy situation bi nga xam ne moom la ñuy dund nekkul tey la commencé yàgg na yàgg na am waaye boo gisee muy law ba tey euh, gën a yokk tey moom mooy que ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def euh, amul benn yoon boo xam ne leen leen inquiété maanaam jéem a def audit saytu bu fekkee ne am na ay responsabilité ñu situé ko ñi nga xam ne ñoom ñooy auteurs yi ñu bindal leen. monsieur Sarr dégg-dégg bi neexatul boo mënee yëngu tuuti. plus de quinze ans. Mm-hmm. Euh, allo. waaw ñu ngi lay dégg sànq dégg-dégg bi dafa xawoon na naqari. Euh, voilà dama nekk ci yoon moo tax. <laughs> plus de quinze plus de quinze ans. Euh, état bi yoonul corps de contrôle ci ci bërëbu liggéeyukaay. Mm-hmm. loolu nag dafay encourager defkatu yu bon yi. xam nga mm-hmm. ñuy def li nga xam ne moom la ñu moom la ñu nekkee ba yóbboo kër gi situation bi nga xam ne ci la tollu tey. alors euh, Abdoulaye Bibi Baldé gannaaw moo fi nekk tey lan ngeen koy joxoñ ci yorinu poste bi ak lan moo ciy responsabilité ci fi ngeen toll tey. waaw tey jii moom Abdoulaye Baldé moom wax na wax na moom ses limites wax na moom tëleem. Hmm. que exposé na ko ñëpp. loolu nag état bi moom moo waroon a tiire les conséquence mais gis nañu ne bàyyi na ko ba léegi. Hmm. Euh, ay lu ngeen bëgg ñu dàq ko ay weer ci ginnaaw jàkkaarloo na ak ak presse bi mhm. say naataango mhm. ne kër gi nga xam ne moom la ñu ko dënk tey jii dañu dañu dañu laal ci suuf maanaam on a touché le fond mhm. amatul dara amul benn pexe bu ñu mënta def koo xam ne dañ la dënk pour nga yor pour nga jubanti pour nga pour nga jagal boo demee ba ne amatoo pexe ci loolu ki dënk war na tirer ay conséquences donc moom ci boppam wane na tëleem ñun ay liggéeykat yi nga xam ne tey jii moom moo ñu jiite gis nañu ci moom ab tayal ab yaafus waaye gis nañu ci moom ab tële waaye ñàkk bëgg xam nga ànd ak liggéeykat yi suqali bos li nga xam ne daal moom moo ko intéressé moo ngi ci et que loolu précipité na situation poste bi nga xam ne tey jii lan intéressé maanaam nekk ci li mu nekk di lancer ay marché di def ay recrutement yoo xam ne tegu ko tegu ko tegu ko fenn di recruter et de consultance yoo xam ne tey jii nii kenn xamul lan moom moo ko kii <laughs> xamul lan mooy priorité entreprise bi euh, tey jii nii la preuve moom mooy que ni mënuloo nekk ci entreprise boo xam ne dafa am ay jafe-jafe ci wàllu xaalis mm. liggéeykat yi ànd euh, booloo réclamer état bi lam ñu yoreloon ci xaalis muy bourse de sécurité familiale yañ ko doon fay te delloo ñu ko boo ko xaymaa mu mot quarante deux milliards ñu xeex ba mu dugal loolu yëpp en quinze mois loolu amul lenn lu mu jëriñ ci relancer activité bi amul lenn lu mu jëriñ pour mën a xam nga fagu li nga xam ne moom la ñu waraloo ak clients yi ak ak ak ak travailleurs yi donc xaalis boobu noonu gis nañu ni ci jamono yoo xam ne ca la gën a méttee marché yi ñu ngi jaabaa jonge hmm. et <laughs> mu ngi fi ne xas et et loolu entreprise bi nga bu am problème <laughs> warul warul demee noonu. Hmm. ndax dangeen ko joxoñ itam ci koppar yee ñu fa lubaloon ba tax ñenn ci seen i euh, ñooñ sax ay liggéeykat ñu ñu ñu dëbb leen jant bi jamono ji muy ay xaalis yoo xam ne dañu ko joxoon ay nit ba mu jural leen li mu leen jural da ngeen jàpp ne bii bi moo nekk itam ci ginnaaw loola. non ñun bañu ca tolloo aussi la ca nekkoon suñu xalaat wax nañu ko parce que ay détournement dafay am ci ay ay ay structures financières day am ci banques yi day am ci mutuelle yi dafay am ci poste ak yeneen i entreprise mais loolu bu amee bu ñu ko saytoo la nga xam ne moom la ñu war a jël comme mesure moom mooy porter plainte hmm. di jéem a xool lan moom moo ko wundu jéem a fexe ba la nga xam ne moom la ñu fa jël mu dellu si loolu ba ñu ca tolloo ka nekkoon directeur général euh, poste finance euh, loolu la defoon la nga xam ne moom la kenn xamul kenn mënu ko nangu moom mooy euh, Abdoulaye Baldé mi nga xam ne moom mooy directeur général post mais nekk PCA poste finance hmm. la nga xam ne moom la defoon moom mooy dàq ki nga xam ne moom moo moo def loolu ñu hmm, dañu waroon a encourager ñu dàq ko mais loolu dina am ay kii waaye enquête bi bi mu demee ba ba ba ba poursuivre tey ji li nga xam ne moom la ñu gis moom mooy fi nekkoon directeur général post finance muy Saliou Fédior lu baax la def parce que tey jii nii grâce a à lui tey jii nit ñi nga xam ne jëloon nañ fa ay xaalis ñu ngi ñu ngi fay mm. te ci ëpp nag ay fournisseur lañ ñi ci ëpp ay prestataire lañ ñi ci ëpp ay personnes externes la ak ay sommes yu colossales yoo xam ne moom la ñu jëloon donc loolu moom lan moo taxoon mu bëgg loolu ñu nëpp nëppal ko loolu c'est la question que tout le monde doit se poser. da ngeen jàpp ne moo ne ci ginnaaw loola. en tout cas ñun li ñu jàpp mooy ñi nga xam ne tey jii ñu ngi croupir xam nga prison ñun dañu mos a jàpp ne ay victimes lañ. maanaam dañ leen a def maanaam maanaam dañ dañu mos a jàpp ne ay victimes lañ. parce que ñu xam ak joxe xaalis bu toll noonu sans pour autant que ñooñu ñu sponsoriser leen te tey ji gis nañu ne euh, ñi nga xam ne bokk nañ ci xaalis boobu noonu ci jël ci xaalis boobu noonu mënuloo sa entreprise ñu agressé ko de cette sorte la nga continuer di jox ñooñu ay marché hmm. et que Abdoulaye Baldé jox na ko ay dans les différentes structures jox nañ leen ay marché hmm. ñun li ñu jàpp moom mooy que ni <laughs> marché yooyu c'est des marchés fantaisistes c'est des marchés inopportuns euh, pour pour pour jox leen xaalis boo xam ne dinañu mën a fay parce que fi mu toll nii xoj nañ leen foog ñu fay xaalis. alors lan la état def ba ngeen nekkee ci jafe-jafe yi ak léegi. ah ñun de li ñu jàpp moom mooy que ni am na ay lenteur yu bëree bëree bëree bëri déjà euh, li nga xam ne moom la gisoon ba mu saytoo ne Euh, poste dafa nekk entreprise à difficulté depuis 2014 moom mooy euh, entamé un processus de restructuration 2014 ba 2022 ça fait ça fait ça fait presque huit ans huit ans ci processus de restructuration facteur d'échec la loolu moom moom moo andi ki nga xam ne da nga ko waroon da nga ko waroon da nga ko waroon xeetali boo xaaree lu yàgg mais day day day day day day day day day day day day day day dee loolu moom moo andi poste bi donc kii bi processus bi dafa yàgg donc loolu dañu jàpp ne waroon na gaaw et tey jii nii euh, ci lañ ko gën a xaar mu mm-hmm. finaliser xam nga ce processus là mais en attendant pour permettre la poste xam nga de continuer son activité war na jubbanti xam nga jooyanti aussi euh, na nga xam ne moom lay ñu ko yore. mais mais yore loon na leen xaalis état ba am lu mu dugal wala. waaw mais li ma wax léegi moom mooy que ni lam ñu loon ci bourse de sécurité familiale yi fay na ko quarante deux milliards en quinze mois mais état saytuwul xaalis boobu noonu lan la jëriñ. fu xaalis ba dem. <laughs> fan la xaalis bi dem loolu la nit ñëpp di laaj. yéen yëgu leen ne xaalis dugg na. loo xam ne ay recette extra budgétaire la. Mm-hmm. ah euh, ëpp na ñaari yoon sa budget. Mm-hmm. jëriñul xam nga dara pour nga mën a relancer say activité jëriñul dara pour nga mën a xam nga fexe ba garder say partenaire jëriñul dara pour nga mën di continuer di fay say salaire say say say say à temps ba sax tey jii ni yow en toute illégalité di précompter xam nga ci salaire yi travailleurs yi euh, maanaam li nga xam ne moom la ñu warloo ak yenn partenaires yi boo xoolee make-up bi nga xam ne mutuelle la tey jii nii poste yu bëri dañ fa am dañ fa am ay prêts hmm. mais aussi dañuy cotiser en termes d' épargne loolu dañ koy dagg seen salaire duñ leen ko reversé depuis novembre deux mille vingt et un reversé wuñu xaalis boobu ba tax MECAP suspendre tout prêt à au au travailleurs. te ñoo ngi dagg liggéeykat suñu suñu suñu ñu ngi leen di dagg suñu IPM bi institution de prévoyance maladie. Hmm. bu kat bi cotiser employeur bi dafa war a cotiser parce que loolu la yoon la yoon wax. Hmm. mais au delà de ça presta prestation yi nga xam ne moom la ñuy def en terme de soins médicaux. destiné aux travailleurs ak seen i seen i seen i seen famille tey jii nii loolu chaque weer dañ koy dagg ci salaire yi liggéeykat yi mais du ñu ko remboursé depuis janvier deux mille vingt deux ba léegi euh, reversé wuñu loolu suñu institution de prévoyance maladie tey ji nii mu ngi sooxee. yéen mbaa ñenn nit ñi fa am compte du ñu mujjee daw ndax waa IPRES moom rocceeku nañu. Euh, non mais ñeneen ak ñeneen wóolootuñ leen fi mu mais mais mais loolu loolu loolu loolu loolu tey jii nii moom moo am parce que waxuma la daw mais <laughs> ñoom ñooy daw derrière nous parce que mm. am na ci ñu bari ñoo xam ne tey jii nii seen i seen seen i xaalis mu ngi mu ngi mu ngi foofu mën a mën a mënatuñu ko jël mm. mënatuñu ko jël parce que entreprise bi am na problème te loolu état bi xam na ko waxu ci dara léegi nag loolu li moy wundu moom mooy lan moo nekk xam nga xalaatu état bi est-ce que dafa pare pour suqali poste génnee ko ci jafe-jafe yi bien daf ko bëgg noot xam nga ci jafe-jafe yooyu xam nga pour ensuite ñëw ak ay réformes impopulaires donc loolu moom mooy li nga xam ne moom moo jaaxal liggéeykat alors waxtu waa ñuy dab ñu ñëw ci solution yi rapidement gannaaw wax nga jafe-jafe yépp léegi lan ngeen gis ne moo mën a génnee poste tey ci li mu ne li li li ñu gis moom mooy que ni état bi gaawantu xam nga euh, finaliser le processus de restructuration mesure yi nga xam ne jëloon nañ ko ñu gaawantu xam nga mettre ko en œuvre mais en attendant que processus bi di jeex tey ku nekk xam na ne euh, gouvernance entreprise bi dafa dafa dafa sooxe ñu jéem a corriger la gouvernance jéem a changer xam nga euh, li nga xam ne moom mooy le top le top management. te en tête mooy le directeur le directeur général jox xam nga entreprise bi entreprise bi. Mhm. entreprise ay possier parce que ay ñu am xam-xam nekk nañ ci ñu mhm. xarañ. Mhm. ñu mën a war a mën a taxaw ànd ak liggéey. a yi redressé xam nga la poste ba pare nag jëm fi injecté xam nga de la liquidité pour permettre xam nga post mën a continuer ses activités mm. mais en le dans le court terme état bi war na xam nga marché yi nga xam ne poste war na ko mën a exécuter mm-hmm. te mu nekk dans le domaine xam nga de de la du de la collecte de la de l'acheminement et de la distribution. maanaam séddale ay courrier wu état bi. waaw waaw jox ko ko mais aussi société nationale de facturation yi hmm. li nga xam ne moom la ñuy kii ci courrier ñu hmm. ñu def ko te loolu war na mën a jaar. Hmm. ñu jéem a xoolaat xam nga la code des postes. jéem a redéfinir xam nga le domaine euh, réservé. et puis xam nga ci ay mandarga yu leer yu yu yu leer yu leer na. naññ yu leer alors ndax da ngeen ah. jàpp ne euh, dàq Ablaye Bibi Baldé itam ci solution yu yu yu yu yi la bokk mais Ablaye Bibi Baldé dàq na boppam hmm. parce que euh, ñun dañ jàpp ne euh, moom bëggul mënul et et et kiiwul. nëbbu ko itam deful lenn ko nëbbu ko moom ci boppam daf koy wax te nëbbu ko kenn que ni même état bi bu ko jëlee fii dina ko utalaat feneen. Hmm. loolu nag mooy li xam ne moom moo doy waar. ay nit ñu dënk leen lu day ni xam nga ay kuréel yu mel ni yu mel ni pos mhm. ñu def fa lu leen neex euh, te wax dëgg yàlla duñu ci xaar lenn comme sanction au contraire dañ fiy jógee parfois ñu defal leen ay promotion kon daal mënees na caa jàpp ne euh, lu ji njàkk état mooy njàkk ah mais mais moom mooy njàkk moom moom moo ci moom moo ci premier responsable parce mhm. que moom moo am responsabilité xam nga gannaaw bi mu amee sañ-sañ teg ci ay nit mu koy muy contrôler donc bu amee défaillance dans le contrôle ba tax mu am ay abus am ay dérapage mais moom kudul moom mooy responsable bi kudul moom du keneen moom mooy responsable bi moom mhm. amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey waxtu wee ñu dab euh, ma fàttali ni yow yaay secretaire général syndicat des travailleurs de la poste